li sadinatan bi kun lil janna min daari min an yaatal min na ñaanal ñëpp leen dalal ci liggéey bii ñu tàmbali daaw ànd ak yéen ay at a ngi ci gannaaw su ko yéen di ko di ko def ci xalaal seen ramadaan ci àjjuma yi ñaan suñu borom kattanal kattanal leen montale ko tàmbale ko alhamdulilah rabbil alamin tàmbale ko bismillah montale ko alhamdulilah rabbil alamin kon xam-xam yi ñu àndal ci liggéey bi suñu borom kattan na leen ak seen xaalis ak leen seen sago ay mën a montale liggéey bi ci liñ ko bëggee dajee gërëm suñu borom waaw sëriñ dégg ak topp seen mboolem dugg la luñ ci dégg bu dee la ko minna